li ci yéenekaay yi soxna Aïssa Diakhaté lañ ci àndal soxna si maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Seydina Omar Ba. tàmbale ko gi di Walf Quotidien. Walf Quotidien daal di xëy nag euh, fësal ci euh, une bi euh, mbirub Adji Sarr affaire suite beauté Adji Sarr nag am nataalam ne fàng ci xëcc yi lañ ci mën a fësal mooy ne Adji Sarr génn ci tekk tekkaral gi mu nekkee woon moom Adji Sarr nag daal di xëy fësal dëggal ni ci ay kàddoom ni Ousmane Sonko da ko siif kon kàddu ya mu lijjantiwaat ba pare ne bu fekkente ne Sonko ah, taxaw na temm ngir waat ci alxuraan ni musul sekk ak moom mu daal di retiré eh, plainte am ah, moom yemu ca mu ngi weddi ni musta ah, gisanteek njiitu réew mi Macky Sall wala sax di ko déggante moom téléphone. wante bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi def ab njàngat bu yaatu jàpp na ne am na lenn ci ay kàddu yu Adji Sarr yu waroo wut bu ngeen ko bëggee xam na ngeen ubbi ñetteelu kayit bu euh, xët bile. direct news. moom mbiru Adji Sarr yi tamit la daal di xëyee affaire Sweet Beauté Adji Sarr génn ci tekk tekkaram gi mu nekk boole cekk ay révélation yu jéggi dayoo benn bi bokk na ci ne euh, Sonko jàpp na ne da koo menacé laataa rek mu ko siif moom ci ay kàddoom ba tey mu ne jot na ko siif sax ay yoon yu bëri bëri mu dëggal ni itamit dafa wan lor dem na ba naan Ndeye Khady Ndiaye moom moo ko proposé woon mu rek mu daal di euh, avorté muy xamle ne tamit mësta am complot bu dox ci diggante mag njiitu mag sàll dem ba naan su Sonko waatee mu daal di euh, rocci euh, plaintam réew mi réew mi moom daxee nataalu kili di Adji Sarr ak Sonko jamono ji nag moom la ñu së la ñu mooy ne su Sonko waatee ñi mësuñoo sekk dara ma retiré sama plainte xët bi loolu la daal di xëy fësal le quotidien le quotidien yéen waaye tamit mbirum affaire Sweet Beauté Adji Sarr jamono ji yëkkati na la lëndamoon ci kanamu euh, Sénégalais laata bañ doon sàkku ngir moom mu génn wax génn nag guleet mu wax nee na na Sonko waat ne musta sekk ak moom loole bu amee rek moom dina euh, renne euh, plainte dem na sax bay at kaddu ay mbir yi jéggi dayoo jëmale ko ci diggante digganteem ak Ousmane Sonko waaye àdduna ne bu fekkoon bu fekkonte ne xam ne ne plaintam gi lii lay jural askanum Sénégal ba jëye di ci am ay doomi aadama di ci ñàkk seen bakken a porter plainte da doon xolam ci boom waaye tey mu ngi jéggalu sénégalais yépp ci biir euh, le quotidien critique critique yéen nag def critique bu yaatu jëmale ko ba tey ci Adji Sarr nga xam ne nii dafa àdduna rek euh, moom Ousmane Sonko moo ko daal di ëmbal euh, ba tey ci affaire suite beauté les échos les échos yéen kaay ne bu fekkente ne Sonko nangu naa rek waat ni musta sekk ak moom ma rocceeku ci sama plainte gi loolee ba tey di ay xibaar yi nga xamante ni nii moom Adji Sarr wax na ko waaye nag di xamle ne bi ko capitaine Touré laaj laajee ki nga xam ne moom moo ko ëmbal dako ko tontu ne Ousmane Sonko la euh, yemu ca mu ne waat na ci euh, bàmmeelu yaayam ne mësta daje ak njiitu réew mag i sàll ci les échos euh, yéene kaay yi la tribune la tribune yi nag moom itamit mbiru aji saax daan ne Adji Sarr taxaw na temm ngir jàkkaarloo ko Sonko dem na sax ba koy àddune yow sekk nga ak moom su fekkente ne sekk na moom na rek waat ne musul sekk ak moom bu ko defee moom mu retiré plainte itam yenn yu ci bëri euh, wax na ko ci ni nga xam ne ni noonu la bés ba tëddee weddi na yi tamit ñuy wax ne Ousmane Sonko ko rek jàkkaarloo nag arme ci kanamam mu ne euh, mosu ko euh, menacé arme face waaye nag génnee na arme ci bi muy door massage bi lool yëpp mu daal di koy xëy fësal ne naqarlu na yi tamit ni ñu koy jàpp di ko toltolaan ak yàq deram ci réseaux sociaux yi. l'observateur l'observateur nag nataalu Adji Sarr la gën a fësal zoomé ko ba ñëpp xàmmee ko dem ba naan Adji Sarr jamono ji nag rek yëkkati na ab fitna ndax ñi nga xam ne war yëkkati na coow ndax euh, bu ñu ko euh, méngalee noonu gën naa takkal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko accusation viol bu leaderu Pastef masseuse bi nag nee na am na ay rapport intime yu mu sekk ak Ousmane Sonko waaye di xam le ne yi tamit am na ñaari déclaration yoo xam ne nii dañu ko xaj ci ñetti pàcc ñetti pàcc goo xam ne am na analyse psychologique gu ñu ko ca toftal ci kanamu wala sax kaddu yi kile di Adji Sarr natalu Adji Sarr ca ba muy nekk ab jànqasu euh, ndaw léttu ba noppi nag teg ci o bu xaw a rek sexy Adji moom jamono ji dakkal na li nga xam ne moo di tekki tekkaaral gi wax na ni nu ko siifee dem ba naan avant Sonko di ma tëddee dama rek amee nekkoon ak sama ndaw muy xam ne ne tamit ne euh, mar Sonko dafa jiital likit laata rek mu ko def yooyu le source a source a nag euh, mu xëy fësal nag ni ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ak Adji Aïssata seen mbir ba tey pënd ga wureegul Adji Sarr woy nag di gën a ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko. las las yéenekaay moom feneen la fël nii euh, nervi yi nga xam ne jamono ci ñooy dicté seen loi ndax bi ñu leen manifesté yi ñu euh, génn dañoo gis ni que euh, fu rek woy takku de taxawee nervi nga ca wet ba ñenn ñi jàpp ne ay policiers yu civil la waaye ñu bëri ñu ngi dëggal ne ay nervi lañu recrutement gros bras yooyu lan moo tax am na ay analyse politique yu ci yooyu yàgg ku ci mel ni Momar Diongue di koy population war nañu moytu yu ni mel ndax Sénégal baaxeewul loolu kële nag commissaire bakka Sadio moom nee na ab mbégteel ak gàcce la am boobu gisee ay nervi taxaw ci wetu police nationale. Sud Quotidien euh, Sud Quotidien yi ne ay kaawu ay torture mooy rek toroxal doomu aadama wala sax ay policier di ñàkke keesa wala fitnaal ay askan loolee nag dafa war a nekk loo xamante ni boo nekkee ci nguur danga ko war a moytu moom Seydi Gassama njiital Amnesty International Sénégal la ñu dénk ay kàddu muy xamle ne nekkee njiit dafa war a rek moytu euh, fileeg muy toog ci pouvoir bi ñu koy tuddal ay bavure wala sax ay euh, li nga xam ne moom moo di euh, torture jëmale ko rek ci ay ñoñam. l'évidence l'évidence yéen kaay nag dafa am sampu laaj ni gestion yu émeute yi nga yi nga xam ne nii amoon na fi di manifester yi ak insécurité bi ñu nemmeeku ci réewum Sénégal ban la ñuy jox kii di Antoine Félix lu ca mën am journal bi di koy xëy léegi ñu daal di libéré ñi nga xam xam ne nii ñoom ñoo di détenu yi ñu jàppee ay détenu politique lañ ci mbiru Ousmane Sonko Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moo fa jaar daanaka sax jot nañoo fësal ay nataal nataal yoo xamante nii ku ci mel ni Guy Marius Sagna ku ci mel ni Assane ku ci mel ni Clédor Sène euh, euh, ku ci mel ni ki nga xam ne nit moom moo di Birame Souleye Diop ak Abbas Fall ñoom ak toll nañ ci itamit fukk ak juróom-ñeenti manifestant yoo xamante ni léegi ñu génne leen te booy seet tànku jàmm gi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moo ko dox ne lan lañ jiitu réew Macky Sall war a def ngir génn ci euh, corruption gi ñu Sénégal gi nekk muy ger goo xamante ne nii euh, journal bi xësa fësal na juróom benn poñ gi koy may ngir mu génn ci guuta gi leen njiitu réew mi Sall ci Le Soleil yéene kaay bëgg génnee Sénégal ci guuta gi mu nekk jaarale ko nag ci wàññi euh, dépense publique bi dépense yi nga xam ne ñoo di ministre yi jàpp nañ ne sax lu toll ci ñeent fukk ak benn milliard ci suñuy koppar ak lu topp ci wàllu téléphone ak auto de fonction si njiitu réew Macky na ko njiitu réew bi tamit yemu ca nee na politique de la jeunesse ak rapport exécutif bi nga xamante ne nii fësal nañu ko faaw rek ñu teg ba ndaw ñu gën cee gis seen bopp rendre na hommage Amadou Makhtar Mbow ak Thione Ballago Seck tamit sàkku nañu daal di koy jiital ci ordre national du lion ci titre posture bi nga xam ne taxewoon na ko ci réew Sénégal ci wàllu aada ak cosaan le mandat le nag def ab gëstu bu yaatu jëmale ko ci calte gu métti wala sax gu taratar gi nga xam ne nemeeku nañ ko ci jidd caaroy kaw dem ba naan calte gi yematul rek ci gis-gis waaye ci